Pape Ousmane démb euh, ci euh, tubaab bi nga xam ne ñu bari gis nañu image bi ab euh, nasaraan la kenn xamul ban nationalité la bokk yow yaa ngi naan tiim nga la fa doon xew yépp bi nga paree wax nga ak moom muy tubaab bi nga xam ne ab journaliste la bu doon taxaw ak takku der yi ñu gis ne takku der yi ñu ngi doon gërbal suñu mbokki journaliste yi yeneen yi xoolal ab sa aan bu Seneweb ni ñu def nii xëcc ci yërëm ah gis nga kii ñu dóor mu def nii muy loo xam ne moom étranger bi ne ñu kenn kiiwu ko dara donc ñu bari nag ñu ngi posé wu la question lan la doon wax ak gendarme yi lan la luy problème bi ba tax na deful nangam comme yow wax nga ak tubaab bi je crois que am na lu mu la wax ci ay kàddu peut-être dig ñu ko mën a leeralal. waaw démb dañoo dajee maa moom c'est un français. mi ngi nekk journal je ne sais pas xaw ma record la ma wax. Euh, jeune la jeune français la. dama dama toog ba mu yàgg euh, xaw ma defe naa am na daal groupe bu ñu dugal image am ñu defal ko ay ma xool yére bi xool li mu sol ma xamante ni moom la ma ne ko monsieur mu ngi nii ma ne ko monsieur mun maa ma ne ko viens mu ñëw ma ne ko mais c'est toi là on dirait que tu as le affaire yooyu quoi mun ma kii ma ne ko toi parce que je t'ai vu sur l'image ma ne ko ça c'est toi boobu am na sama yeneen xarit yu taxaw ca kaw terrasse ba ca kaw a kaw lañ taxaw ma ne que mais qu'est-ce qui se passe pourquoi les gens euh, tombent comme ça sur les on a dit un journaliste de l'ordre mu ne m'a ma ne ko ah bon mun man oui personne ne m'a malmené j'étais en de filme et le gars m'a appelé il m'a dit que qu'est-ce que tu fais je lui ai dit moi je suis un journaliste nationalité française il m'a dit faut pas faut pas nous filmer je lui d'accord il m'a laissé il, il m'a interdit de les filmer te ce qu'il m'a dit faut pas nous filmer tu peux filmer mais faut pas nous filmer après mu dem yoonam loolu la wax ak moom ma ne ko c'est comme ça mun ma c'est ça mais comme mi ngi doon wax ak moom am na ñoo xamante ne nag ñoom dañuy yore seen ay chaîne ay vie la ñuy wër dañu bëgg bu ñu defee dara rek ku ko gis rek daw kilika fa pour nga mën a am benn vie yu bëri yi te ba may wax ak loolu ay nit ay ko yu ma yu ma taxawal ñu ngi woon foofu di témoigner loolu maa ngi ko koy laaj mu may wax loolu mais am na ñu fa taxawoon loolu muy wax noonu ne bu bëgguñu woon nag mu wax loolu parce que Sénégal mooy réew moo xamante ne bu xeex amee ñu bëri dañuy bëgg affaire bi di maanaam du ñu bëgg accalmie dafa am ñu nekk ci réew mi fii bu xeex amee bëgguñu akal mi ñoom pour ñoom nay tàkk rek eh wuy sama sa suuf à Kaolack tal nañ lii wuy sama xaaral ma dem ndar dégg naa ndar ñaari deux morts oh ñaw mais damay xool ma ni mais ñii ban façon sénégalais lañ ak ñoom lan lañ bëgg lan moo tax ñu bëgg pays bi dem en kawo te ñoom xamuñu li ci réew mu dem kawoo man yooyu dama koy gis démb dama toog ba yàgg sama benn collègue sana xool ma ni ma grand yombi nga de parce que dama dafa dama dama def nii d'abord maa ngi sonn lacrymogène yi sonal na ma mhm. maa ngi xiif maa ngi mar te xaw ma fu may jëlee ndox xaw ma fu may jëlee lekk ma toog janoog événement yi muy daw ma def nii mu may xool ma yàggul ma grand yaa ngi yaa ngi yaa ngi départ ma ne ko yow de jëli nga ma parce que man demoon naa bu yàgg ndax maa ngi xalaat naan lii fan la fan la jëm xam nga des fois di nga gis dara nga toog di analyser nga ni lii fan la jëm xam nga ndax dafa garaaw xale yi ngay gis sa ay jarbaat lañ sa ay doom lañ policiers yi ngay gis sa ay jarbaat lañ sa ay doom lañ sa ay mboq lañ sa ay copain lañ ñun ñëpp ay sénégalais lañ léegi nag ñaari population yooyu janoo ñii ñii bëgg lii ñii bëgg lee léegi nag ñiy jàmmaarloo ci biir réew mi te ñu bokk ñun ñaar réew mi mu am nag loo xamante ni boole nañu ba tax ñuy rayante suñu biir dama naan mais lii lan moo ko fi jar xanaa gars yi du ñu toog dellu si xam ni àdduna bi tôt ou tard lépp day jeex mais nit bu meree day ñàkk xel moo waral yenn yu bëri nga koy gis policiers yi aussi dañuy dem ba yenn moment yi da nga leen di gis xam ni ñi dañoo bëgg mbir bi jeex parce que da ngay dàq booy yi ba booy yi dem policiers yi commencé roñaat seen bagage toogaat ba mu yàgg ñett ñëwaat juróom commencé taal ay affaire commencé sànniwaat booy yi génnaat finalement dañoo mujj wuuri wiiri mooy oto bi di di foncé di daw ci kaw booy yi bañ naan tey mu rey xale yi mm-hmm. oto boobu loolu yëpp boo koy gis ñi koy def da ngay xam ni ñii dañoo mer parce que dañoo affaire bi jeex mais mer ba di enfoncé ci c'est pas normal. mais leen jàngal lool seen formation non c'est pas normal ñuy def loolu. loolu c'est pas normal kenn kenn d'accord ci. mais maanaam sous le coup de l'émotion ñoom it la ñuy demee. parce que xeex bi mooy dem si ñoom day bëri man démb damaa toog di xool ñaari camp yépp démb laa mës a def loolu man musuma dem manifestation musuma dem ku kii euh, maanaam di jël ay manifestation c'était la première fois hier ma janoog manifestation janoog deux camps yépp policiers yi nekk sama suuf nii xale yi nekk nee ma leen di seetaan plus de trois heures de temps ci kaw loolu laa analyser lu bëri bëri bëri xam ni lii saanu saanunu men à à rien du tout donc nag tubaab bi ba ma ko laajee lii la ma répondre mais nag am na ñoo xamante ni pour mën a am benn bës bi pour mën a am yenn vie yi ñoom ñoo ko jël nag mal mëne ko parce que gars yi léegi jaayetuñu dara tiitre la ñuy jaay mhm. dañuy toog di jaay tiitre ndaxte AdSense day fay te gars yu bëri tey YouTube la ñuy dundee ci la ñuy ndékkee ci la ñuy fay seen location ci la ñuy añ ci la ñuy reer mës naa ko wax benn site bu ñu ma invité waa ji naan ma yaa yàq suñu deal ma ne ko kon nga baal ma àq mais dëgg rek moo tax ñuy wax am na yoo xamante ni dañoo créer seen chaîne YouTube pour di mën a di lekk te ñooñu seen seen YouTube yooyu tant que dëkk baa ngi tàkk ñu ngi am ay vie su dëkk bi seddee seen mbir dootul dox ñoom nag léegi loolu la ñuy bëgg taxaw naa démb di xool benn jeune mi ngi reporté du ma wax organe mu nekk mi ngi reporté mais comme kuy reporté làmb yaa ngi xale yi jël nañ xeer yi xale yi sànni nañ oh police yi ta taal euh, euh, jël nañ lacrymogène yi taal nañ ko man de sama yaram ngi daw waa nag euh, ki ne loo mën a wax mu ne ko waa lii kay moom lu ñaaw la ndaxte ah ah xale yi dàqan nañ police yi police yi da mais mu mel ni kuy reporter waaw mu mel ni kuy kuy reporter làmb nga xool kii di ko def mu wóor la ne kii amul 30 ans kii amul trente ans dañ ko jox micro rek mu ñëw toog di wax mais amul niveau li muy def ñooñu aussi war nañ leen gën a mën a canaliser boo gisee des fois ñu naan réseaux sociaux yi dafa am lu bëri lu muy yàq kii kenn du ko clash yow kenn du la clash parce que yaa ngi dem ak xel wutoo ay bii wutoo buzz Bilia foo yëkkati sa kàddu wax ñëpp xam ne yow mii xel ngay waxee ak respect doo froissé kenn mais wax ngay xool ci nit mu toog ci réseaux sociaux di wax mu wër la ne kii day froissé nit wala kii dafa far ba mu feeñ te yow nga ne yow da ngay analyser ku nekk am na koo bëgg Mm. ku ne am na ku sa xol ne mm. mais yow bu ñu la tegee ni la arbitre nga arbitre bul sol mayo équipe ba ñu ne la yow yaay arbitre Côte d'Ivoire ak Sénégal ay football nga ñëw taxaw ci diggu terrain bi di arbitré sol mayo Côte d'Ivoire bu bu neexee waa Sénégal ñu la yow ñu la seetaan duñ la déglu ndaxte yow doo fi soufflé lu ñu arrangé mm-hmm. kon nag tey gars yi ñu bëri euh, di def ay chronique ci émission yu bëri ci site yu bëri ay ay partisans lañ soit ñu nekk bokk bennoo bokk yaakaar wala ñu bokk Pastef wala ñu bokk Yewwi wala ñu bokk fii wala ñu bokk faa bu ñu taxawee ten candidat rek la ñuy wax li ci gën a ñaaw nag may tëjee mooy saaga ndey yi léegi Sénégal dafa mel ni saaga ndey nekkatu fi dara une deux ñu ni diw nangam sa ndey nangam sa baay nangam sa maam bu ma la jàppee naa nangam te loolu ñu xamuñu ko woon donc quel que soit alpha réew mi la ñu bëgg ay nit yore ko ñii koy yore tey buñ koy yoree man de li may ñaan pour kuy yore réewu senegal na réew mi dina ci jàmm rek ndax man kontewuma ci ñoom pour am déedéet nañu yeewu mu am jàmm tant que jàmm ngi am man bu ma xëyee am naa lu ma mën a def pour mën a am. waaw waaw mais mënuma compter ci Macky Sall man kontewuma ci Macky pour Macky Sall yoreel ma sama àdduna jamais bu fi Ousmane Sonko wala Jomaay falu woon it kontewuma ci ñoom pour ñu yoreel ma sama àdduna man maa am samay pexe bopp yu ma mën a génnee jël oto dem sama yoon. teg sama ay waar di liggéey mais loolu mënu ma ko def te bu jàmm amul tey bu jàmm amul ci réew mi man dina mën a xëy liggéey bu jàmm amul mën naa dem xëy dem dóori ki nga xamante ni day xëy di jaay suppame di jaay carotte di jaay ñam bi nekk ca marché ba lal ay lalam tey bu jàmm amul dina mën a def lool ki nga xamante ni day dem liggéey lu mu am ñëw taal añ guddi gi bu ñëwee mu taal reer suba bu xëyee damaa tool ba wutiwaat suppame ñëwaat teg kooku bu jàmm dina mën a kii kon nag ñooñu tey konte wuñu si nguur yii parce que fii Sénégal ñu bëri dañuy wax système bi la ñuy changé mais ku fi ni système bi ngay changé ñu nekkoon ci système bi ñooy ñëw infiltrer dugg ci biir. Mhm. man gëwuma kenn ni fii def fiy changé système. candidat bu fi toog ni bu ma ñëwee damay changé système bi am na fi candidat yoo xamante ni tey ñu ngi fi nii dañuy changé système bi am na ñu ak ñoom ñoo xamante ni depuis jamonoy Senghor ba léegi ñu ngi woon ci système u Senghor tey ñu ngi ñëw infiltrer leen. Mhm. kon nag réew mi pour changer système bi dafay metti mhm. parce que esprit yi la ñu war a changer esprit yi nag pour ñu war ko mën a il faut ñu changer ko ci dal changer ko ci teey bañ ko changer ci xuloo ci reyante ci ci xëppante ci noonoo noonoo léegi réew mi dafa nekk ay noonoo wante biliyaa yow da ngay nekk sama noon parce que yow man bennoo laa bokk yow Pastef nga bokk nga def ma noon man it ma def la noon su ma la gisee du ma la yéen a jàmm tey jii bu dëkk bi dee tàkk ñu leen di jàpp nga gis ñi kontaan ñaw xamoon nañ lii dañ dañoo dañuy jaay affaire rek bàyyi leen rek dañ xamante ni nga gis ñee laa li ñuy def ay waay ñun sonal nañ ñu amatuñu jàmm mënut ñaari kaa gis kenn ku nekk ak intérêt ba nga xamante ni moom nga teg kon nag Sénégal dañu war a dellu suñu xel te ñu xamante ni fii réew mi day jeex mhm. tôt ou tard day jeex Senghor a ngi fi woon jeex na Abdou Diouf mi jeex na Abdoulaye mi ngi jeex na Macky Sall moo fi nekk nii tôt ou tard day jeex jeex ci boppam sax day jeex kon nag na gaa yi delloo ci seen xel xam ni yoo fa ngi nii sorewuñu mi ngi sunu ginnaaw am na ñoo xamante ni ñoo ñu gënoon bëgg àdduna ëppoon ñu xaalis ëppoon ñu ay oto ëppoon ñu lu lépp te ñoo ngi fa tey tëdd la leen fa tëral ñoom rek ko ko xam kenn mu kenn demul ñëwul nettali la dafa am kon nag yow fi ngay jëm dafa lëndëm ci yow amoo ci leerluwaay amoo ci dara te ñu ngi wax doomu aadama yi nañ fa bàyyi xel ndax tôt ou tard dañ fay dem te loo jëf ci àdduna bi fii lu mu mënti doon dañ dañ la koy tegal mu nekk balance nii ñu la koy wanal comme doomu aadama moo mën toog ba mu yàgg ni biliyaa xaaral ma génneel la sa image bi nga fi defoon ay temps tegal la sa image nga naan ay yow xool ni ma changé xool ni ma sewee woon xool ni man ñëw lay woon man nii laa meloon ñu la koy tegal comme nit moo man loolu asuma ak yàlla coon sekk woy na ko coon sekk woy na ko ci wayam boobu jaaga segam segam xaw ma lan yéen mën a lii lii lii moom mooy waxam yooyu asuma ak sunu boroom moom mi nga xamante ne da lay tegal li nga defoon lépp mu nekk loo xamante ne munoo ci dara kon nag àdduna bi na gaa yi na gaa yi delloo si waat seen xel mais Sénégal daal politiciens yi li ma mën ngeen wax daal mooy pour ma jeexal waaw xoj nañ ñu daal xot nañu trop ci ci baat euh, nangu ñëw yuuxu kenn du wax kenn du sëqët donc lu doy waar la Belia euh, yaakaar naa am na passage bu Pape Ousmane wax ça nous concerne concerne nañu ñun mooy des fois man sax damay toog di ko di ko naqarlu trop nag mooy da ngay gis euh, manifestation day am nga gis kuy reporter mel ni kuy wax nekk ci làmb parce que day jàpp ne loolu mooy charme bi loolu mooy tax nit ñi seetaan effectivement ñu bari loolu moo leen di seetaanloo mais c'est pas du tout Euh, c'est pas professionnel quand même benn professionnel buy wax euh, damay saluer quand même liggéeyu benn journaliste boo xam ne euh, tout le temps dama koy gis day def ay reportage am mais sans mu déborder mm-hmm. sans mu wane ni dama koy def affaire de comédie mais am na ñoo xam ne comédie lañ ciy dugal comme genre na mën dañuy seetaan naa wax lii wax nangam ñu dagg ma dugal ma TikTok c'est pas important loolu baaxul kenn du ko def mais xëy na seen cas la seen feeling la donc beneen bi mooy yenn site internet yi mën nañu sax wax lu dul dëgg pour ñu seetaan leen ci seeni titre comme démb li Pape Ousmane wax seetu naa ko ci ñu bare bare ñu doon coupé euh, vidéo tubaab bi dañ cee bind ne dañ ko malmené effectivement mm-hmm. alors que c'est c'est c'est autre chose naka nga gisee yenn liggéeyu yenn site internet yi ci yenn euh, xew-xew yu mel nii waa Alioune moom euh, sànq yaa ngi wax lu am solo bi ñuy def li di wax sa xalaat nga ni ndax euh, force de l'ordre bi mooy ñii ti tiire si kaw askan wi maanaam ndax yenn saa est du manque de formation yi ñu leen war a defal la est-ce que du manque de formation bi ñu war a am la mais tey day feeñ tamit ci milieu journalisme mhm. day feeñ surtout si manifestation mhm. da ngay gis koo xamante ni boo ko boo seetaanee site boobu noonu da ngay dégg kii reporter da ngay dégg mhm. day wax mel ni ku nekk ci làmb wala mel ni ku nekk ci loo xamante ni mbirum foo Mhm. te foofu noonu nit mën na cee ñàkk bakkanam foofu noonu ku nekk mën na fa subir lu nekk ndax ñu ngi brutaliser lii di journaliste yi kon donc am na ñoo xamante ni kaay wax la rek duñ ay journaliste de ay ay ay ay ay ay technicien saa nga gis ci koo xamante ni day reporter technicien la du journaliste am na yenn saay yenn formation yi boo ko defee génn ci yenn école yi mag yi alune mhm. booy reporter da nga koy def loo xamante ni lu lu lu maanaam loo xamante ku ko seetaan day xam ne kii journaliste dëgg la am na ñoo xam dañ leen di woowee ay journaliste fekk duñ ay journaliste journaliste ci ci nii neen rek yomb naa doon mais journaliste dafa aajowoo nga jàng am diplôme bi da nga xam la savoir fair nan nga koy defee ak nan nga koy doxalee ba nga xamante ni ku la dégg dina xam ne kii journaliste la pourtant am na ci ay site internet yoo xam ne journaliste yi ñu jël ñu ngi reporter normal da ngay xam ni ñuy waxee da ngay xam ne kii métier lu mu mën la mi ngi koy def normal te bëggu ci benn benn benn vue bëggu ci lenn loo xam ne dañ koy dagg di ko yóbbu TikTok pour ñu koy seetaan. Mhm. kii bu Sonko yi passé da nga gis ñoo xamante ne dañ leen di dagg luñ leen saf la ñuy wax ci biir manifestation yi. Mhm. mais da ngay jàpp ne loolu c'est pas normal te tey commentaire yi dañu ci xas boole ñu ci ñun ñëpp liñ naan bombi benn pombiteer bu yàqoo da yàquwaale saak bi yëpp. ñu mën a ràññee ñan ñooy journaliste dëgg ak ñan ñooy toppandoo journaliste yi ñoo xamante ne ñii ay technicien lañ ñii ay présentatrice lañ présentateur lañ yenn saa sax am na ñoo xam ne ay animateur lañ dañuy wàcc ci terrain bi ah, eh. eh. doguma doguma la sax mais tey bu ñu demee ba ni carte presse mhm. carte presse yi nga gis ñu teg ko ni dafa war a am mhm. xanaa xamoo maison yi réseaux sociaux yi euh, dérive bi ñuy def des fois moo tax gars yi bëgg euh, segg segg mbir mi waaw waaw segg ko ni képp ku amul carte doo dugg télé yeeg rajo yi ñooy dérangé parce que ku nekk yow xoolal la nga mën nga def ko. Mhm. ku nekk xoolal la nga mën man reporter la man je suis un reporter. Mhm. man je suis pas un journaliste. aw ma formation journaliste. def ma formation journaliste. mais yàgg naa ci télé yàgg boo xamante ne bu ñu demoon présenter le journal ma def ko. Mhm. bu ñu demoon demal nga def reportage ñëw indi ko ma def ko ndax gis na journaliste yi ni ñu koy daggee ak ni ñu koy kii mais ka dem jàng am ay diplôme am kenn mënul yem ak moom ka dem sisti wala ki dem ci école professionnelle yi fay mhm. xam nga ba ba nekk journaliste mhm. am na luñ koy jàngal information d'abord balaa nga koy teg na nga ko vérifier tey da ngay gis ku teg affaire am maanaam titrage bi rek ak la mu cay def photo ya mu cay teg rek yow bu dee da nga nekk si YouTube li ngay njëkk def mooy da ngay jël sa baaram ni kalaj mais pour dañ kumpa waaw ba xam nga ne am na site internet yoo xamante ni bu manifestation amul kenn du leen seetaan am na am na site internet yoo xamante ne seen contenu ñu ngi koy basé wu rek ci problème am diggante Sonko Macky Sall. moo tax nag man la amul duñ am contenu. am na ku yore site fii dama ne ko dama am invité bu ma la njëkk bëgg indil. mu ni ma bu dee APR la bu benn bokk yaakaar yooyu bul indi. bu dee nag waa yeewi la bokk wala Pastef moom indil ma. aywa ma ne ko li tax mu ma parce que ñoo ñoo bëri fii. je te ah lay xool ma carrément ñoo ñoo bëri fii. site bu mag la fii. mag a mag Sénégal ñëpp xam nañ ko ma ne ko ah ko amul benn problème ci la ma waa ji woowaat ni ma ndax lijjanti nga émission bi nga ma doon wax saa ma ne ko moom euh, koo xamante ni daal euh, côté bee la bokk ñooñu la bëgg parce que foofu moo ëpp ay vie ndax fa la gars di gën a def fii loolu yàlla moo koy def Ousmane Sonko yàlla moo ko def ci xel xolu sénégalais yi loolu man damay toog moom ni li li lii xaw ma lan la ni ko nit ñi bëggee dafa yéeme man damay toog li ñu naan bayra kay waaw bayra la yor loolu ku ko bañ da ngay sonn ku ko nar a bañ si sa live rek dangay sonn yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ci nit ku ko neex mais nag tey jii da ngay dem ba gis ñu bëri ñu yor seen ay sit billaahi wallaahi tonk bu génnee weer bu dee ñooñu yor site yi war nañ koy jox weer bu dee àllarba si si di ko ci jox dara war nañ ko jox àllarba di ko jox jomaay fay di ko jox waa Pastef di ko jox seen avocat bi maître Ciré door hmm. ñooñu war nañ leen di nattal parce que ci ñoom la ñuy dund am na ñoo xamante ni dëkk bi li mu calme nii neexu leen arrangé wu leen ñoom bu doon seen sago Sénégal chaque jour mi ngi am xeex gaa yi ngi taal puno lacrymogène yaa ngi dem moo tax waruñu leen koo may Ouspa Ousmane ah, bëri na fi de waruñu leen koo may xam nga tax tey jii ni genre benn Bla Bla TV sans politi sans sans manifestation sax am na continuer mhm. te am na site yoo xamante ni mooy li may wax sànk rek sans affaire manifestation bu amul duñ doxal ndax ñoom seen seen seen seen seen ci loolu lañ ko basé wu mhm. te na dëkk bi di yëngu rek na dëkk mhm. bi di tàkk ñu am seen élément yu yónni ci terrain bi muy doxal normal na nit ñi di leen mën a seetaan ah. mais tey jii nii ki nga xamante ne moom liggéey bi da koo bëgg sans politique sans manifestation day doxal politique moom mënul ñàkk sax si si benn site internet foog mu am xam na politique dafa bokk suñu dund na tey jii ku ñu jox njiitum réew mi foog nga nekk politicien donc mais mais nañ koy rafetal nit la pas bëgg ay vues ba nga jël titre loo xamante ne benn bad buzz lay def dara jaru ko ci àdduna mm. tay jii doo am benn crédibilité boo xam pourtant fi am na site yoo xamante ne saa soo leen gisee ñu def benn am na ñu bëri ñoo xamante ne dañ naan moom ñi duñ wax katu dëgg ndax lan ah. dañ ngay dem ba da ngay ñàkk sa crédibilité ah, loolu dara jaru ko si àdduna ay vues bu mu la jaral nga ñàkk sa crédibilité am na yenn saay invité yoo xamante ne invité yu mag am na site yoo xam bu ñu leen invité ñu nangoo ñëw que ñu nangoo jëm maanaam ñoom xam nañ ni ñii ci lii la ñuy dox. te am na ñoo xamante ni ci lu ñuy dox lu nekk wala sit bu ñuy dem dañuy xool ndax benn am nañ am nañ loo xam liggéey bi ndax professionnel na. na liggéey bi équitable na ndax tey jii plateau mënoo cee toog ne yow benn bokk yaakaar rek ngay jëlal seen part. Ah. ndax lan sa poche mën a duuf. Ah. non ah. doo wax ci ñoom loo xamante ne yow da ngay xoos re dangay xool retour bi. fi am na ñoo xam ñu bëri dañuy wax du nangoo laal dëgg bi ndax lan ragal ñi nekk ci côté boobu ndax nee ñoo yor doole bi. waaw dañuy bëgg kuy duufal seen i poos. Ah, ah. te boobaa yow dafa toog sa métier. na yow bu ñu tegee fii da ngaa war a nekk. gars dañuy ragal ndax ñee ñoo yor doole yi. dañuy ragal benn côté ndax ñee yor saaga yi. boo waxee fee ne. mais saaga yi ñee woo la commencé la sa. passement saaga moom ñëpp koy def. mais man mii di wax ak yow. toog naa manifestation am mani muy waa ñëpp a saaga mani bu kenn dem ci terre bi di ko yàq. sama doom moo ma woo ni ma papa mun maa mun ma gisoo commentaire yi ma ne ko commentaire lan sama beneen jarbaat mi ngi sey fii noor faar woo ma ah, ah. waaw tons mun maa mu ne gisoo commentaire yi li nga dugal ma ne ko la ma dugal man du ma xool commentaire moi je regarde pas les commentaires